vraiment lii moom kontaan dama ciy kontaan bu baax a baax vraiment lii mooy wane ne ñun ñëpp ay benn lañ sport war warul xaajale daa war a boole xam nga ñii samay garaa lañu vraiment affaire bi nice na quoi kontaan naa ci ñëpp di ñaan affaire bi dem si kanam quoi vraiment. yow looy xaar ci association bi ban boo amoon loo leen di dénk loo leen di wax. non maa seen ginnaaw. leen di loo leen di dénk loo leen di dénk en tant que xale. kontaan ci ñoom rek xam nga. sama lañu vraiment nice. mais ngañ du ma ñëw ba dem tamit te laajuma la ci ren ci sa saison macha allah saison bi mel ni ren yaa ngi am looy wane bu baax a baax a baax mu mel ni ngañ mu ngi commencé màgg leen ci la euh, ci maanaam ci làmb quoi. nii mooy seen samay garab instant bii nii ngañ mooy bandi bi instant bii mooy bandi bi. waaw jégal mi loolu. yow tamit da yaakaar naa bi ngay ñëwee xaw na retard defe naa ne mbir lii am nii tey. pour yéen lutteurs yi nga xam ne yéen a yëngu simple bi la noo ko gisee. waaw naaj rafet na trop di ñaan yàgg suñu borom dafa ñu jàmm defal ñu cet rek parce que lii mooy àdduna ñun ñëpp ay frère lañ duñu ay ennemi di ñaanal champion yi fi nekk yëpp suñu borom may leen wér ak gudd fan defal leen jàmm xam nga ñun ñoo far ordi sama grand ga ñeneen ak ñeneen booy yi ñii xam nga affaire bi dafa naaj quoi waaw di ñaan yàgg jàmm yàgg fi rek ci barke Seydina Muhammad ñun ñoo far barke Serigne Touba Mbacké te lii moom xam nga nañ ñu ñaanal rek affaire yi gën a dox dem ci kanam quoi. laajoon naa ko gars yow mbër nga yaa ngi yëngu ci lutte avec frappe di yëngu ci lutte simple mais da gisul ci association bi nga xam ne moom mooy lutte lutte avec frappe da ngeen ci gisul seen. suñu suñu bopp parce que foofu noonu xam nga rek ay politiciens ñoo fa nekk foofu moom ay mbër ay politiciens. non ay politiciens ñoo leer na kaay kaay kaay. grand naka mu. am nga jàmm waaw am naa jàmm ba daje ngeen nag daje bi tas na macha allah waxtaan ngeen euh, tey boo amul looy dénkaat sa mbok mbër yi yéen ñiy lëngu ci simple bi ginnaaw bi daje bi amee noo ko gisee yow en même temps avant tout. li ma leen di dénk mooy discipline rek discipline comme xam nga tey instant bi lii comme am na ñoo xam ne mun nañ koo gisee dañuy fayantoo ak euh, waa lutte avec frappe mais dama bëgg gars yi demee xel ñu xam ne lii defuñ ko ngir fayantoo defuñ ko ngir leneen dañoo def ngir jëmale lamb kanam li simple kanam comprendre demuñu ngir xëccoog ñoom euh, suñu grand ñoom Gris Bordeaux demuñu ngi xëccoog ñeneen yi ñun ñëpp a far ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi dañoo ñëw pour sukkal làmb li simple dañoo ñëw pour li simple lu ko lu mu manqué woon ñu am doole ak li simple ñoo xam ne blessé woon nañ si li simple yàlla may leen ñu def ba ñu yàlla may ñu kattan boo xam ne dina leen mun a aider pour ñu dem faju ji waaw. mais yow lutte avec frappe am nga ci licence. waa am naa si licence moo moo tax ma ne la xam nga ki sa waay wax na ñun am na ñoo xam bokk nañ si groupe bokk nañ si groupe bii parce que tey euh, mosu mosuñu ma see woo mais man bokk naa si parce que maa ngi bëri lutte simple lutte avec frappe kon cela veut dire que bokk naa foofu mais du tax nag tey ñooñu bu ñu wootee ma dem mais fii dañoo bëgg a sukkal li simple jàppale suñu rakk yi di ñëw ndax bu ñu ñëwee am doole xam nga am fu ñuy positionné aussi kanam. mais yow kon su ma la déggee ñee licence lutte avec frappe moo leen boole mais bu ñu bu ñu woo bu ñu wootee waxtaan doo fa dem. non bu ñu wootee waxtaan moom du ma dem. doo dem non ma dem de. kon li dafa frappé rek moo la booleeg ñoom. waaw loolu rek moo ma booleeg ñoom quoi sincèrement parler. parce que lii moom man su ma sañoo moom man lii moom dañuy dañuy ñaan yàlla daal yàlla dooleel ñu ba lii nekk loo xamante ne war dañu toog sax di naan war nañu koo yàgg a def. waaw jërëjëf. jaajëf Mamadou Faye naka mu. nii rek. waaw yow tamit defe naa li ma laaj rek laa lay la parce que yow yor nga lit licence lutte avec frappe maam booy fay yor na ko kii yor na ko yéen ñëpp yor ngeen ko mais tey laaj naa ko grand bañik léegi ndax waa lutte avec frappe association boobu kon bu ñu leen wooyee su ma leen déggee est-ce que di leen wuyu ñun euh, li ñu amal importance ak li ñu amal solo mooy lamb simple bi comme ñun xam nañ ne buñ ko bàyyee suñuy rak ñoo koy def dañoo bëgg suñu rak yooyu ñu teg leen ci côté. balaa foofu ñu njëkk a teg suñu bopp ci code ba nga xamante ne bu ëllëgee bu ñu jaalee toog fële di seetaan booy si nekk ku si dara dal mu xam fu mu war a jem xam lu mu war a def loolu rek mën a uppal solo man jàpp ma ne affaire bi association bëri simple ak bëri dóor man dama jaap ne làmb la ñu pare pour doxal ko man côté boobu laay waxee ndax man dama jàpp ne ni ma bokkee si association bi noonu laa bokkee si association bale waaye nag man bii moo ma gën a ñor waaw bii moom a gën a ñor parce que li tax bii moom a gën mooy tey maa ngi ci te ñi si nar a ñëw suba yëpp samay rak lañuy doon waaw kon bëgg naa nag voilà sa ñi ñiy topp samay ginnaaw fu ñuy jaar yoon boobu nekk yoon boo xamante ne dañ koy xali ba nga xamante ne ngay ñëw rek jàll dem sans sans problème loolu rek mooy problème bi loolu rek lañ bëgg waaw. mais dinaa profité laajal benn affaire defe naa demoon nga Singapour Singapour daa mel ni métti woon na ci yéen de. waaw métti na. lan bi foofu. waaw bon xam nga góor moom euh, daram yombul comme li may wax liy yéeg rek mooy daj lu métti euh, Singapour bon yoon bi sori na dëgg la dugg nañ si distance boo xamante ne bon mosu ñoo dem foofu aussi waa mais lépp luñ fa daj ci coono nag ñi ñi nga xam ne ñoom lañ fa fekk loolu lañ daj. lu a ñu gagné leen lan mooy motivation lu motiver ngeen ñàkk médaille d'or. waaw loolu nag xam nga yàlla yàlla moom. bu bu la waree xañ rek dalay xañ waaye man sax sama li ma gis ñooñu ñoo leen man mais nag nekk nañ ñu mën bëre waaw sénégalais yi mun nañoo mun bu ñu jàpp ne comme li ma waxoon bu ñu jàpp ne bëre Sénégal la yem de déedéet bëre yemul Sénégal façon suñu façon bëre bii moo yem Sénégal mais ñooñu seen façon bëre lañ yor mun nañ ko bu baax a baax a baax a baax mun nañoo mun nañoo demaat suba sax ñu gañewaat ñu. waaw si parce que yàlla bi nekk fii moo nekk foofu te ñoom tout le temps ñoo ngi si loolu comme ni ñuy compétir fii noonu la ñuy compétir ñoom dañuy compétir chaque instant waaye nag bon li ñu gën a faible loo bokk na si bu fa demee taamu ñu dëkk bi dund bi et tout ça récupération bi xam nga xam nga lekk bi doo comprendre aussi. lu ngeen doon lekk foofu. waaye ay lekk yi nga xamante rek mooy lool pat wala ceebu jën am na fa wala. non ñoom lépp la am sax. coob bi lépp lañ am mais seen togg yu togg yu façon togg yu ñoo bokkul waaw doo comprendre daal wax dëgg ne. loolu mënoo koo lekk xam. jour dimanche bi ñu compétir jour bi ñu ñàkkee kenn añu si ñu na ah, ah non lekkuñu dara. billaahi man si matin bi li ma ndekki sax dama ko wàcc waat ba mu set. yàlla xam na loolu. boole ko ci avion bi. ah mais xam mais nag loolu dara jar na ko. mi jar na ko daal. jar na lu ko ëpp sax jar lu ko ëpp. ndax suñu morom ñoo nekk si arme bi ah di fanaan si àll bi di di daj lu métti ah voilà bon kon ñun li ñuy daj ji méttiwul par rapport ñooñu kon di nekkul lu ñuy jooytu waaw maa ngi nuyu homme de tenue yi samay supporters yi maa leen di bégge bu baax a baax a baax oui parce que mënumaa mënumaa dem te waxuma ak ñaar ñi le président ma bala may ci président ma njëkk ci Boy Faye Boy Faye defe naa ne tey daje ngeen taxaw ngeen sa léegi nag daa mi da ngeen fas yéene doxal su ma leen déggee waaw waaw waaw ñu ngi lay bëggee bu baax Babacar waaw loolu lañ waaj de wax dëgg fa yàlla ndaxte mbir la moo xamante ne nii moom nit ñi sax dañ koy gis muy lu war a am si suñu biir ñu ñu koy wax kon ñun ñoo ci war a jiitu daal association la boo xam ne daal wax dëgg fa yàlla bëgg nañu lépp loo xamante ne dañ koy wàccee ci wàllu làmb rek ñun sunu paar ñu jot ko ci normal ndax tubaab këyit la xam dugal këyit ni ñëpp am association quoi nit simple bi. Gaskel président maa ngi lay bëggee. waaw Babacar rek bëggee naa la lu bëree yow la gars yi teg ci bopp association bi nga jiitu en tant en tant que président euh, objectif bi carrément carrément carrément tey boo ko doon tënk lan lay doon exactement. waaw objectif bi euh, li tam ma koy tënk. Euh, franchement dañ fi gis loo xamante ne jot naa xew si suñu grand yi nga xamante ne ay ndaanaan la ñu woon def lu ne ci làmb indi fi façon médaille bu ne ñu ñu ñëw topp seeni ginnaaw def fi lu ne yaa ngi dégg tey jii boo duggee Sénégal laajte trophée boo xamante ne si ni lamb moo ko fi indi lutte simple moo ko fi wàccee te dañoo gis que ne dañoo am manque de considération loolu moo tax bon ñu du pour maanaam créé ñu AG bi pour concurrence wala pour xeex benn affaire boo xamante ne ni xam c'est illégal non non non non dañ koy def pour dimbale suñu bopp dimbale suñu rakk yi nga xamante ne ñoo nekk suñu ginnaaw waaw. Euh, mbër yi nga xam ne ñu ngi ci biir di bëri leen avec frappe di bëri leen simple mbër yooyu tamit parce que ku mel ni Grand Mbagnick moom laa xam leer na ne na moom bu ko wàllit avec frappe wooyu ci ci wàllum waxtaan wala association moom du dem moom association bi la reconnaître ne na daal ñee bëri moo ko boole ak ñoom yow loolu noo ko gisee. waaw man de association bi laa reconnaître parce que association boobu ma mosuñ ma ciy wo keneen ak keneen noonu li ma li li li dal Grand Mbagnick moo ma dal moo dal keneen ak keneen te ñun def nañu seen marqué nañu suñu empreinte si làmb lu tax ba association bi ak nu mu munti demee rek ñun waroon nañ see gis suñu bopp kon tey jii bu ñu demee ba gisuñu suñu bopp rek loolu moo tax ñu waral lii defar suñu yëfu bopp. am na solo merci beaucoup.